République ak nuyoowu président Idrissa Seck mais également di leen indil nuyoowu leaderu coalition bi yëpp maa ngi ànd ak seen doom seen njaboot seen candidat à l'élection du 23 janvier pour la commune de Thiès-Est monsieur le maire Sayer Mangane fii nag kër Ablaye Yakhine suñ fu ñëwee. dañuy nuyu di ziara suñu yaay suñu wayjur suñu maam su Adja Soxna say bata ay Aydara ñu koy ziar bu baax a baax a baax a baax di ko ñaanal suñu borom yàlla yokk fanaam donc daal di koy wéral ay cëram gën ko yàgg ko bàyyi ci kanamu njaboot gi lu yàgg a yàgg a yàgg yàlla dogal na nag fii Ablaye Yakhine suñ fi ñëwee dañuy am mbégte mais également dañuy am yaakaar ndax yàlla dogal na am na ay at. yoon bi yoonu Ablaye Yakhine bi suñ fi doon jaar xam ngeen jafe-jafe yi ñu ci doon am bi yàlla dogalee ma nekk ci mairie bi ak président sa Seck ci la ma joxoon budget wu ñaari milliards trois milliards deux cent millions benn milliard six cent bi pour ay tëli la woon ci lañ defaree tëli Ablaye Yakhine bii nga xam ne benn tëli gënu ko ci Thiès ci laa taale lamp yi aussi ngeen gis kon ngeen xam ni fii ci Ablaye Yakhine yàgg nañ ko bàyyi xel yàgg nañ jàppale Ablaye Yakhine kon boog Ablaye Yakhine na seen xel dal ëllëg su ngeen ñu joxaatee mairie bi dinañ bàyyiwaat xel Ablaye Yakhine dinañ defaraat poste de santé bi ndax poste de santé bi tamit man maa ko defaroon bu ma nekkee maire kon na seen xel dal man ak Sayer dinañ joxante loxo man ak Samar ak Sayer Mangane dinañ joxante loxo li nga xam ni mooy mébétu waa Ablaye Yakhine ñu gën cee taxawaat gën a bàyyi xel jigéen ñi gën a bàyyi xel xale yi mais également gën a bàyyi xel mag ñi ci jigéen ñi nag jigéen ñi laay terminer. yéen jigéen ñi xam leen ni am na programme bu am solo bu ma lancé muy programme de financement des femmes lancé naa programme boo xam ni def naa ci téeméeri million pour jàppale jigéen ñi pour le moment programme boobu nag liñ ci yéene mooy suñu financé jigéen ñi ba pare suñu leen financé ci première phase bi ci 100 millions dem ba 200 millions dama bëgg dama dama bëgg ñu yàlla mayee mairie beeg jàmm ñu lancé banque boo xam ne pour jigéen ñi jot def ci un milliard pour les femmes un milliard pour les femmes kon yéen jigéen ñi na seen xel dal pour les jeunes pour les jeunes jeunes yi xam leen ni li nga xam ni moo am solo pour la jeunesse c'est la formation xale yi il ngeen jàng il faut ñu tàggat leen te ci loolu nag dinañu préparer gën a jàppale jeunes yi. former leen wutal leen ay emploi mais également wutal ay projet financer leen ko ñu ngi sant ñëpp di gërëm asalaamaaleykum wa rahmatulah jërëjëf. jërëjëf jërëjëf jërëjëf soxna si asalaamaaleykum mbokk Cité Senghor maa ngi leen di nuyu di leen ziara di am mbégte bu baax nag ñëw fii ci Cité Senghor ànd ak suñu rak. suñu responsable le candidat de la benn Benno Bokk Yaakaar ci commune de Thiès Est mooy suñu rakk Saer Mangane ñu ñëw nag fekk fii fekk fii suñu responsable fekk fii ki nga xam ni moo tax suñu xel dal ci moom suñu xel dal ci Cité Senghor muy suñu responsable suñu frère Cissé Beye Cissé Beye ci Beye moo dalal suñu xel si di Senghor Cissé Beye moo tax ñun amuñu lu ñuy tiit amuñu lu ragal muy Cissé de Senghor daf ko doon gañe moom dong ci njàmbaaram ci taxawaayam ci engagement ci côté population yi moo tax élection bu ñëw Cissé Beye gañe ko haut la main fii ci de yàlla dogal na nag tey dañu wax Benno Bokk Yaakaar ñu daal di wax mburoog soow ba nga xam ni sama mag yi mu doon ma xam leen nga xam ne ñoo bokkoon koñ bi ñu nekkoon ñun réew mi ñoom ñu nekk APR tey nag président Idrissa Seck ak président Macky Sall joxante la ko nekk benn pour liggéey Sénégal loolu nag yombalal ñu lépp su ma gisee tey suñu mag ja Dia di Koor ja nga xam ne suñu mag la mu ñëw ànd ak CCP yi def équipe ñu nekk benn dafa naa ni kon fii victoire 90 pour cent la ñu fii ci école bi loolu moom leer nañu kon Cissé dama lay féliciter di féliciter le comité électoral de Cité Senghor ci accueil bu rafet bi ngeen ñu accueilli di wax Salif également que seen retrouvailles yi ñun kontaan nañ ci am nañ ci mbégte bu baax ñoom pour la yem ci yéen ñëpp ñu ngeen ànd nekk benn loolu kontaan na ci ñu ngi leen di sant ak les jeunes mais man waaw les balantak suñu mbokk yëpp ñu teew mais dama ni damay profité pour rendre hommage à un homme. koo xam nii dama xam yéeneem xam sacrifice am xam taxawaayam ci suñu wetu yaay suñu seen wéju Adja Gàmbi Fall muy Mamadou Bey mii di magu si la sant dañ la gërëm yow kuy njabootu président Idrissa Seck kuy njabootu Adja Garmi Fall war na laa sant gërëm ndax yow yaay loxo Adja Garmi Fall Adja fu mënta egg yow yaa fay nekk te yow yaa koy taxaw yaa yor léppam kon war nañ la rendre hommage su fekkente ne Garmi Fall suñu yaay la nekk suñu wayjur xam taxawaay bi mu am ñun suñu la fekk dinañ la rendre hommage sant la gërëm la mais aussi nga xam ni Cissé Beye am nañ ci moom kontaan Cissé Beye dalal suñu xel Cissé Beye mot na sëkk li mu doon fii ñun ci Cité Senghor amuñu fi tiit amuñu fi njaxaare ndax Cissé Beye kon fii ñu ngi lay sant di la félicité mais également ma leen may leen ma Cissé Beye wax na ko sànq may leen ma Cissé Beye wax na ko affaire financement jigéen ñi financement jigéen ñi na seen xel dal Cissé Beye wax nga ko jigéen ñi war nañ leen a jàppale jigéen ñi amuñu doole jigéen ñi amuñu moñet te ñoom ñoo yor kër yi ba tax na man lancé naa programme boo xam ni programme bu jàppale jigéen ñi la ñëpp dégg nañ ko ñëpp xam nañ ko mais financement boobu nag yàlla dogal na man commencé naa ko fii ci Cité Senghor xam ngeen nii am na groupement yoo xam ni may naa leen déjà loolu sax waruma koo wax ndax dama ni waruma koo wax bu leen feeñal seen bopp bu leen feeñal seen bopp dama ni financement yi commencé na am na loo xam ni damay bañ ndiiraan bi topp ma mais financement yi commencé na ci sëriñ jox nañu cinquante groupement déjà am na cinquante groupement yoo xam ne ku nekk am na cinq cent mille francs muy vingt cinq millions de francs am na ñoo xam ne fii ci Cité Senghor ci marché Ocass keroog bi ma koy def Cissé bi yaa nga fa teew am na groupement yoo xam ne jot nañ seen chèque ba pare ba commencé nañ liggéey am na ñoo xam ne tamit ñu ubbi nañ leen leen compte yi financement yi mu ngi ñëw kon xam leen ni Cissé Cité Senghor du des ak ginnaaw. le moment téeméeri millions lañ mobiliser pour jigéen ñi cent millions mais suñu yéene suñu yéene mooy ubbi banque boo xam ni pour jigéenu Thiès la ñu dugal fa pour les femmes de Thiès loolu nag su amee loolu nag su amee xam leen ni toog amatul noppal amatul liggéey moo xew mais avant loolu si sa béy ci 200 groupements yi nga xam ni moom mooy projet pilote bi xamal ni Sédé Senghor am na ci. loolu nag defe naa ni maam Diarra mii nga xam ne àndoon na ko Cheikh Lo doon ko liggéey fii ci Thiès am na lu ñu ci tàmbali woon te loolu xam leen ni léegi ñu lu mottali ko beneen pour les jeunes ndaw ñi Cissé Bey wax na ko sànq ndaw ñi li nga xam ni moom ngeen bëgg mooy mooy formation ak liggéey formation nag formation ak liggéey formation yi defe naa ni directeur ITECOM a ngi nii sama ginaaw ginnaaw Momadou Ngingue mooy directeur président ITECOM mu ngi nii ñëpp xam nañu li muy def ci formation te ci formation boobu président de la république dafa lancé programme boo xam ni 3FPT moo ko yor boo xam ni ku bëgg formation état bi da lay fayal 90 pour cent mooy su fekkente ni da war a fay école de formation 100000 francs 100000. état bi moo lay fayal quatre-vingt-dix mille yow sa waa kër dix mille francs la fay kon ngeen xam ne loolu am na solo pour xale yi ak pour waajur yi loolu nag dañ koy organiser organiser bu autour de CCBI ñi nga xam ne am nañ dossier bëgg formation pour am métier am liggéey nañu rapproché wu ci CCBI ñu wan ko yoon bi ànd ak moom li nga xam ne jeunes yi bëgg nañ ko ñu defal leen ko beneen pour financement jeunes dina dinaa wax naa ni dinaa lancer benn projet comme ni ma defal jigéen ñi. jigéen ñi 100 millions laa commencé ak ñoom mais pour les jeunes je veux démarrer avec un projet de 50 millions de francs CFA pour les jeunes 50 millions laay commencé ak ñoom léegi nag projet bi c'est la même chose que jigéen ñi man projet bi jeune bu bëgg projet bëgg financement man dama lay fayal caution dama lay fayal nga mais également suñu la joxee 2 millions wala 3 millions nga war a def sa projet intérêt bi nga xam ni moom la ñu kii bi doon laaj banque bi man maa la koy fayal doo fay benn intérêt kon loolu laa bëgg a jàppale jeunes yi ak jigéen ñi ngeen xam ne ñun dañoo taxaw pour liggéey na seen xel dal léegi nag am na problème yoo xam ni Cissé Beye wax na ko damay bàyyil suñu rak monsieur le maire de la commune de Thiès Est le candidat de la coalition Benno Bokk Yaakaar notre jeune frère Sayer Mangane mu ñëw ci problème assainissement yeeg problème yëpp ñu leen sant leen gërëm asalaamaaleykum wa rahmatulah. asalaamaaleykum waa envie de dire ce soir ni ko sama mbokk Haalpulaar yi di waxee buñ demee ba yëf yi sës. nga xam ne pexe amatul ñu ne xaala gasi mooy game is over Cité Senghor yëpp ci mat na Cité Senghor ku xool mobilisation bi fi am ku xool mobilisation bi fi am di nga xam ne ay jàmbaar ay nit ñu am taxawaay en politique lañ fekk ci tey ñii am taxawaay boobu donc ñi am taxawaay boobu en première chef je peux pas ne pas citer mon frère mon grand frère monsieur Cissé Bey Cissé Bey Cissé Bey yéen waa Cité Senghor ñun yéen ñuy jàngal kan mooy Cissé Bey mais du ñun ñoo leen koy wax ci taxawaayam ci yëg-yëgam ci doomu aadama yi ci sociabilité am ci fidélité am en politique ci loyauté ak ci engagement am politique ak envers la population yéen waa Cité Senghor da war da a war xool chance bi ngeen am am nit ku disponible comme Cissé Bèye am nit ku am engagement comme Cissé Bèye am nit ku jub comme Cissé Bèye am nit ku yëg nit ñi faale leen safoo leen di taxaw seen yitte comme Cissé Bèye waaye waaye ci biir loolu mënuñu ñëw ba fii duñu rendre un hommage mérité à notre grand frère koo xamante ne déjà dans le domaine du sport lépp lum mën ak lum xam def na ko ci ba ay jeunes yu bëri bénéficier wu ci ba ubbi seen avenir ñu am un avenir radieux je veux nommer ce que j'appelle affectueusement président Salif Diapor maa ngi nuyu également des jeunes très engagés ak des femmes ñoo xamante ne au nom de la de cette coalition dans cette coalition il répond au nom d'une personne d'une personne d'une grande servitude envers les populations d'une personne très engagée koo xamante ne dimbale na population thiessoise bi nu mu ko mënee ci xeet bu nekk ak fànn bu ne muy celui que j'appelle aussi affectueusement moo oncle je veux nommer le PCA Siré Dia ci ñooñu ci am nañ ci sunu frère mu ngi nii taxaw ak casquette bi mooy Ablaye Thiam ngeen tàccul ma ko bu baax a baax Aji Diouf aussi mu ngi ci mbooloo mi bokk ci famille bi Siré Dia ci politique bi taxawaay bu am solo ñu nuyu également Kouta Sall ma sœur maa ngi lay sant bu baax a baax maa ngi sant di nuyu oti aussi Mati cam ci taxawaay bi ak présence sur la scène maa ngi nuyu aussi Karo Ndiaye ci taxawaay bi moom tamit di nuyu également sama jigéen sunu yaay sunu wéttal Ndey Fall maa ngi koy nuyu bu baax a baax maa ngi nuyu également soxna Awa Sall mais aussi Kiné Ndiaye ak soxna Gisee di nuyu maire Penda bi nga xam ne maire bi nga xam ne sànq romb nañ buntu këram léegi ñu ngi koy ziar bu baax a baax ñi may mujjee te fekkee ne mujje gi doonul mujjee dama bëggoon passer plus de temps ci remercier leen par rapport ak engagement bi ñu am par rapport ak disponibilité bi ñu am par rapport ak vraiment seen jeunesse bi ñu am consacré ko par à la chose publique je veux nommer un certain Souleymane Touré un ami un jeune frère maa ngi maa ngi nuyu aussi quelqu'un qui est très disponible un jeune intellectuel malgré son jeune âge koo xamante ne dans sa démarche et dans sa conduite de tous les jours il montre toujours que c'est un intellectuel je veux nommer Mamadou Gningue ici présent merci maa ngi nuyu aussi suñu jigéen Mati Dieng di nuyu Ndiame Ndiaye di nuyu Pape Alsane ñoom ñëpp maa ngi leen nuyu bu baax di leen wax rek ne waa Cité Senghor am ngeen ay doom yu am taxawaay ci chaîne politique ñoo xam ne leen mën nañ leen représenter dignement mën naa ci cité Ami Diop di suñu jigéen du suñu wéetal mais également maa ngi nuyu famille suñu famille politique bi yëpp yi fi nekk maa ngi nuyu sama jigéen ab sa yi ci ci mobilisation bi merci beaucoup maa ngi nuyu Aïssatou Aïssatou Diakhaté aussi wa ah. Aïssatou Thiongaan suñu jigéen di répondre ci aussi ci turu président Siré Dia bëgg naa remercier ñëpp Kouta maa ngi leen di sant yéen ñëpp di leen gërëm bu doon sama sagum ñëpp laay tudd mais rek waa Cité Senghor ngeen xam seen école bii ngeen xam ne seen préoccupation majeure la xamal ne bàyyi nañ ko xel lépp lu ñu ci mën incha allah dinañ ko def te duma ci wéet te duma ci wéet parce que yi ngeen koo xamee maa ngi feggoog sama grand frère le ministre Yankhoba Diattara lépp loo xamante ne am nañ ko fu ñu ci limité incha allah moom dina utiliser carnet d' adresse am utiliser contact am utiliser xam-xamam ak influence am pour ko loolu réaliser. maa ngi leen di wax ne aussi seen ndox yi ngeen tuur ci mbedd yi mu leen di indil ay jafe-jafe yëg nañ ko lépp luñ ci mën dinañ ko def pour ngeen am ay lavoir ak ay puisard ba ngeen xam ne mën ngeen di jaar seen mbedd yi te doo leen takk doo leen dugg ci benn côté maa ngi wàccee sama kàddu foofu di nuyu ay yu mag. yoo xamante ne pour wan ne waa Cité Senghor ñun coalition benn Bokk Yaakaar cër bi ñu leen jox ak respect bi ñu leen jox boo leen xoolee oto yi suñ ginnaaw boo leen ko ubbee ay kilifa yu mag ngeen ci fekk kii nii nekk si sama ginnaaw borom basin bu rafet bii moom frère Mamadou Ñing moom mooy directeur Itecom mu ànd ak ñun wetti ñu di ñu gunge mais maa ngi remercier également l'honorable député Yaya Ly moom tamit mu ngi ci oto bi mais maa ngi nuyu sunu jigéen Mame Diarra Bousso Diop moo ngi nii toog ci ginnaaw nii di wax rek waa Siré Senghor waa Siré Senghor ñun xam nañ par rapport ak seen mobilisation que ne y aura pas combat amul marché là le marché e fini game is over merci beaucoup